bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wa imaamil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka antal aliimul hakiim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 meññu jàmm ya nekk fa moom waaye ñu ñaan ko mu nangul ñu waxtuy julli bañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw ci jàkk ji ginnaaw bu ñu déggee noddkat bi yëkkati baatu yégle ne audience bu mag ba ñu war a séq ak suñu borom mu daldi ñu wax màggaayu yàlla ak ne mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku dut yàlla waaye mu toftal si ne mu ngi seede ne Muhammad de yàllaa ko yónni mu daldi ñu woo ci mucc bi nga xamante ne fa la ñu war a mën a fàggoo mucc àddina ak teqey alaxira te mooy la nga xamante ne mooy julli mu daal di ñu wax ne muccukaay boobu duñ ko amee fenn fu gaay di woote duñu ko amee ci leneen fa gaay di woote amul benn woote ba nit di woon nit ñi ñu di fa jëlee mucc wala texe àddina ak alaxira lu dut la noddukat bi di woote foofu donn la ñuy faggoo fa la ñuy fa la ñuy manxee la ñuy may texe àddina ak texe alaxira moo tax bu àggee fa naan hayya la sola ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu jullit bi dafa war a wax laa hawla wala quwwata illa billah bu waxee hayya ala falah ba léegi jullit bi dafa war a wax ne laa hawla wala quwwata illa billah ndax ñaari baat yi dafa am la muy composé wu waaye aka neexoon béréb bañ koy yëkkati yow mi koy dégg ci béréb boobu nga xam lañu yëkkati ni lu mu doon wallahi bu duwutoon la hawla wala quwwata illa billah doo mun a say cër dox dem ci béréb boobee rawatina noddkat bi lamu mu ci waxtu su néew ci jàkka ji mu teg ci assalaatu xayrun min annawm ba léegi yonent bi ne da nga war a wax ne laa hawla wala quwwata illa billah bu waxaatee ne assalaatu xayrun min annawm nga war a wax laa hawla wala quwwata illa billah moo ne mbokk yi noddukat bi loolu mu njëkk a wax hayya alal falah kaay si texe texe bi nga xamante ni du ngeen ko amee fen fudut hayya ala salah ci julli boo leen di jokkale seen diggante seen borom kon noddukat bi lii mooy nodd ni ne kaay ci julli ba leen di jokkale ak seen boroom waaye kaay ca fa ngeen di amee texe bi nga xamante ne moo leen di texeloo fii ci àddina ëllëg bés penc ngeen bokk ci ñaar ñi yàlla di may badj falaax badju texe ñu ràngoo la ko ku la gis si mbooloo bés pénc ñu xam ni kii minal muflixiin ki yàlla daka may mu bokk ci way texe ñi la yàlla wax ci ñi nga xamante ne ulaika humul muflixuun ñooñu la yàlla boole ci kuréelu way texe ñi falaa texe dañ ne amul kenn ku fi nekk di woote ci texe lulul kenn koo xamante ne moo nekk ci jàkka ji di woote fa julli yi di amee texe àddina ak texe àllaaxira te moo ne woote boobu boo demee sàkku fa texe woowu ngay faggu fii ci àddina ak ëllëg bés pénc ñu ne yaa ngi koy amee ci julli ba mu naan hayya ala salaa leen ci julli julli ba leen di jokkale seen diggante ak seen boroom ñu ne tey kenn ci kilifa àddina yi bu joxee benn annonce si tele yi walla ci rajo yi wala ci site internet yi ne audience ba mu war a sëq ak ñii wala audience ya ma war a sëq ak groupe tel wala audience ya ma war a amak ak ñenn ñi ci nit ñi ci citoyen sénégalais yi ñu ne kooku bu koy wax ña audience bi concerné ñooñu dong ñooy dem wuyu allahu akbar monsieur tel woote na béréb sàngam waxtu tel bés tel ah képp ku ñëw waxtu woowu bunt baa ngi disponible pour nga dugg bii dañ koy jaay gisi fermé place yi dañ kaa réserver léegi-léegi nga dégg ñu ne woote boobu sax billet yàlla fay tax dugg gise ferme la du ñëppay am accès dem foofu amaana béréb boobu am na ñoo xamante ne sax dugg fa sax yittelu leen waaw waaye fii fa noddkat bi di woote da di béréb bi nga xamante ne képp ku texe àddina yitteel da ngay wuyu képp ku texe àllaaxira yitteel da ngay ji te moo ne texe boobu lala la koy taxa fàgguloo mooy audience ba sa boroom di am ak yow jaam bi amul benn audience bu gëna a noobul ci dundu doomu aadama bi lu wuute lu raw audience ba ngay am ak sa boroom juróomi yoon ci bés bi waxtu audience bu njëkk ba weesu na ci waxtu su néew ci ginnaaw di julli fajar bañ doon julli ci jàkk yi ñaareelu audience maa ngi nii di ñëw ci yërmande yàlla yàlla programme juróomi yoon la ñuy am audience suñu digganteeg moom ndax xam na ne seytaane di suñu noon mooy ñuy jëfloo jëf bu jëfuwul mooy ñuy waxloo lu waxuwul moo ñuy meloo melokaan nga xamante ni yàlla bëgg ko sopp ko gërëmu ko ngir suñu xel di dellu fa moom yàlla mu daldi di ñu baaxee juróomi yoon bu ñuy am ak moom audience yàlla ne ci diggante bi lépp li ngeen def la nga xamante ne lu jëfewul la li ma leen di jéppee bu ngeen delsee ci man ci anam ba sama yonent bi jàngale masala nga jàpp sellal sa xel sellal sa xol ak sa xel daal def ay mouvement comme naka yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci xadis nee na a raaytum law anna nahara bi baabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin xamsa marat hal yabqa min darnihi cheyan qaalu laa yabqa min darnihi chey qaala fa dalika mislu salawaat alxams yamxu llahu bihinna alxataaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba xam gis ngeen ki yore piscine ki yoro dex ci bunti mu di plongé wu ci piscine boobu wala ci dex boobu mu yoro ci bunti këram mu di ci sangu bés bu nekk mu di ci sangu juróomi yoon nee na ba xam njortu ngeen ne kooku yaramam dina taq ñu naan ko déedéet saxaaba ya gon ci jotaay bi saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yal na leen yàlla gërëm ñoom ñëpp ñu ne yonent bi ne déedéet kooku jëmmam day set wecc daray taq-taq tilim du taq ci jëmm jooju ndax day sangu ci piscine boobu wala ci dex boobu juróomi yoon yonent bi nee na fa daalika noonu la mel nag bis la salawaatul xams julli juróomi képp ku koy julli ci waxtu wa julli bi lu mu digle nga tënk fa sa bopp lu mu tere nga sore ko yonent bi nee na noonu la julli juróom di raxase taq-taq bàkkaar yàlla seytaane jëf jëfloo ci sa jëmm ci biir ak ci biti kon audience bi mel ni lañ doon joxe sànq ci jàq yi amul benn audience bu ko gën a ci audience ya doomu aadama yi di am ñoomi neen ci suuf si léeg-léeg nga gis kilifa bu am audience ak benn notable bu mag ci notable nitu àddina yi ñu teg ko caméra ñu ne tey kilifa sangam am na audience gisee nag kilifa sangam bu yore poste nangam ñu teg ko ci écran yi ñëpp di ko xool ñu am yaakaar ne ñaari kilifa yi audience bu ñu séq nii gisee bu ñu séq nii am na lu siy ruus am na lu siy meññ loo xamante ni day njëriñ askan ba kilifa bi jiite parce que am na moroomu kilifam ba mu giseel ci audience ba nga xamante ne waxtaanoo nañu lay njëriñ seen askan waaw ki bind audience boobu ci ñaari jëmm doomu aadama yooyu ak njëriñ ba si bàllee bind ñaari jëmm yooyu jox leen titre ba ñu ràngoo kooku audience ba ngay amak moom est-ce que mun ngaa imaginer audience boobu ni muy toll commentaire beeg réponse bi kenn ku nekk nang nanka xool noo koy commentaire wala noo koy tontoo ba tax na audience boobu yëglu ba ñuy yëglu mooy nodd kon ëpp naa négliger ëpp naa dumóoyu yal nañu yàlla déggloo la nodd bi di composé biñ koy war a mën a wuyu ca fañ koy woote ndegem audience bu noobul lañuy am ak suñu borom yal nañu yàlla tàggatal suñu cër ak suñuy xol jëmmale ko ila maa yuhibbuhu llahu wa yarda amin ya rabbal alamin yan na yàlla tàggat suñu xol ak suñuy xel ak suñuy cër jëmmale ko ci fépp fu mu bëgg moom yàlla mu doon ay béréb ya mu gërëm man na ko sañ na ko yan nañu ko yàlla defal ni amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne démb ñun doon waxtaan ak yéen lu aju fa suñu borom ne tukki leen ci kaw suuf si ngeen xool mujjanteelu ñi fi nekk woon di weddi xéewalu yàlla yeleen yàlla xéewala waaye tukki boobu anam yañ ko war a defee bur yàlla moo ñu ko wax ne ñu waaye nag alak seen bopp walla rey seen bopp moom bokku ci waaw bu ngeen ko defee ah loolu du lu ma gërëm ndax ku leen yërëm la bu leen alak bopp su booba maa leen jox autorisation ni tukki leen ci suratul démb saar bañ leen jàng di suratul an'am waaye tey ñu war a jël beneen aaya bu bee ci suratul naml ci suratul naml mooy saaru naml ñu ne mooy xorondom waaw suratul naml muñ demee xool foofu yàlla buur bi tabaraka wa taala aya soixante-neuf buur yàlla mu ñuy wax ne qul siiru fil ard fanduru kayfa kaana aqibatul mujrimin ba léegi buur yàlla tabaraka wa taala mu ñuy wax ne yenentu bi waxal sama jaam yi ne leen nañu doxantu nañu tukki ci kaw suuf si ngir ñu mën a xàmmee ñu mën a xool na mu nekkee woon mujjanteelu gaay ñu fi nekkoon di dund waaye kàccoor lañu fi nekkee woon di ko dundee waaw kàccoor yi fi nekkee woon di dund na yàlla jëflanteeg ñoom ba seen mujjanteel daal di naax saay képp ku bëgg a xam mujjanteelu kàccoor yooyu yàlla nee na jox naa la autorisation yombal naa la papier ak fafal naaw yangay dugg ñu jëlee la fa nga nekk yóbbu la fa nga bëgg a jëm ak xeetu waruwaay yi nga xamante ne maa leen ko tàggatal ñu doon anam bu légal waaye nag ah wala taqtulu anfusakum bu leen jaaree ci volet ba ngeen di rey seen bopp ndax inna allaha kaana bikum rahiman yàlla da buur ba ëmbal yërmande bu toll ni keneen ku dul yàlla amul kenn ku leen yërëm yërmande bu toll ni kon mbokk yi na ci commentaire bu ndaw ay taaliqaat ya ñu war a mën a andi ci maana aaye ba nekk ci suratu naml qul siiru nel sama jaami nañu doxantu nañu tukki nañu takk seeni bagaas ak seeni saak ñu jël seen waruwaay bu ñu munu wor seen waruwaay ba ñu war a mën a yore te ñu mën koo war ñu doxantu fil ard ci kaw suuf si fanduru ngir ñu mën a xool ñu mën a gëstu ñu mën a saytu kayfa kaana ana nu mu nekkee woon aqibatul mujrimin mujjanteelu kàccoor bandi yi fi nekkoon di dund ñu mel ni firawn ñu mel ni xaamaan ak seeni général yi ñu nekkee woon ak seeni commanda ya ñu nekkaloon yàlla may leen xiiwal yu ne gàññ waaye ñu defee ko doxalinu kàccoor jëmmale ko ci seeni askan ñuy dëmm ñenn ñi di rey ñenn ñi di bàyyi ñenn ñi ñuy gundaandaat ñooñu nekkee woon di dundu kàccoor bi ni mel fa ñu jaar ak la yàlla jëflanteek ñoom dafay doon sañ mujjanteel ana nu ñu mujjee sunu mujjanteel nu mu yàlla ne yonent bi nel sama jaami xool ne leen siiru na ngeen doxantu fil ard ci suuf si fanduru ngir ñu war a mën a xool def investigation def recherche def enquête ci lan kayfa kaana na mu nekkee woon aqibatul mujrimin mujjanteelu kàccoor mujjanteelu bandi yi nekk woon ci kaw suuf si di dund kon ndegem yàlla moo ñu jox autorisation ngir ñu yàlla moo ñu jox autorisation ngir ñu génn suñu réew ñu tukki dem xool mujjanteelu bandi yi fi nekkee woon di dund nañu nekkee woon ci seen banditisme yooyu kàccoor yu fi nekke woon di dundu nañu nekkee woon di dund ak seeni dund ñu kàccoor woowu ñu nekkee woon ndege mburu yàlla moo ñu jox autorisation bi waaye moo ñu ne bi léegi wala taqtulu ngalla waaye bu leen rey anfusakum seen bopp inna naka yàlla kaana bikum rahiman ku leen yërëm la kon bu dee buur yàlla jox autorisation nañu tukki leen jël leen seeni bagaas ngeen tukki na ngeen jël seeni matuwaay ngeen tukki waaye bu mu doon ci volet bi nga xamante ne da ngeen di alak seen bopp dangeen di rey seen bopp waxuma anam yooyu de ku dem nga àgg sant yàlla ku dem des si alkaange sa bakken des si su ko defee nga naan ndogalu yàlla ah yàlla teel raxas tel naa raxas loxom ci mbir bi de moo ñu ne wala taqtulu bu leen rey anfusakum seen bakken inna naka yàlla de kaana bikum rahiman ki leen yërëm la waaye bu ñu demee xool beneen aaya buur yàlla ne wala taqtulu bu leen rey nafsallati harama allahu bakken ba yàlla xaraamal ngir ñu faat ko wala taqtulu bu leen rey nafsa allati xarama allahu buri yàlla xaraamal na ki ko rey walla ki bokk ci comploté ba ko rey illaa bil xaq lu dul ci dëgg ba tax yàlla ne bakkan bi de na jóge ku faat bakken lu dul la yàlla digle ne bakken boobu dafa war a faatu lu mel ni ku njaaloo lu mel ni ki sangewu mu mooy yàlla lu mel ni ku ñu war a rey ci tiiralinu chariatul islaam lu mel ni ki sharia joxoñ ne kii de mënees nañoo faat bakkenam budut yii yàlla ne bu leen faat bakken bu kenn bokk ci complote bi nga xamante ne day bokk ci faat bakkan bakkan bu faatu képp ku bokk ci nu fañ koy nase buñ la fa tuddee keroog booy si set moo ne dañuy xool bi ñu xam ne dañ la siy tuumal mais laalee woo ci taxoo ci moo ne buñ la siy tudd rek woo nañ la yaa fa nekk yaa fa nekkul bokk nga bokkut loolu après lay leer tellement bakken dafa diis bakken dafa foor yow mi waaja alak sa bopp yalla ne bul rey sa bopp wala taqtulu anfusakum yéen mi waaja rey seen bopp ci yoonu tukki mi nga xamante ne c'est pas légal comme ni ko gaay di tuddee yoonu clandestin yàlla nee na faat seen bakken bu leen rey seen bopp yalla ki leen yërëm la waaye beneen aaya ba nekk ci suratul isra buur yàlla ne wala taqtulu bu leen rey bu leen doon sabab ngir ay bakken di faatu bu di doon sabab ngir ay bakken di rot bu doon sabab ci waruwaay yeeg ci bindikaay yeeg ci waxukaay ngir bakken di rot bu leen doon sabab alerte bu njëkk ba yow mi bugg alag sa bopp yow la la yàlla alerte yow la yàlla muy ne bur alak sa bakkan bul faat sa bopp wala taqutulu anfusakum yow mi waaye rey sa bopp ci yoonu tukki bi nga naan yi yaay da koy jëme te wóorula la ba xam di àgg wala doo àgg te moo ne yàlla moo ne na ngeen tukki ci kaw suuf si ngeen xool mujjanteelu gaay yi nga xamante ne dañ fi nekkoon di dund dund nu kàccoor waaye dem xoolu mujjanteelu ñooñee walla di dem fàggu alal balay tax sa dund bi ñoŋ ànd loolu yàlla ne bu ko jaaree fa ngay alku yàlla ne bu ko jaaree fa ngay loru yàlla ne bu ko jaaree fa sa bakkan di yem su ko defee doo àgg doo am li ngay ut sa mbokk yi ñàkkal yàlla ne na la avertir na la ne la bu ko jaaree ni bul alak sa bopp yàlla mi la bind ku yërëm la de bul faat sa bopp yàlla mi la bind ku la la bul faat sa bopp yàlla ku la sopp la waaw ah, bul farsa sa bopp yàlla bëgg na la yàlla bëgg na la de inna allaha kaana bikum rahima yàlla ku leen sopp la yàlla ku yërëm la bu leen seen bopp beneen bi mooy wala taqutulu yow mi bëgg bokk ci ñuy nas ñuy comploter pour faat bakken yàlla ne hmm, bu leen rey bu leen faat bu leen tuur bu leen bokk ci ñuy tuur di faat bakkan ba yàlla xaraamal illaa bil xaq lu dul ci dëgg lu dul ci dëgg jooju noonu nag mooy bakken joo xamante ne islaam chariatul islaam mu tëral ne bakken bi dafi war a jóge muy dundu ci société bi loolu yàqute la kon na fi jóge ni mu mel baaxul ba tax na yow mi jëfandikoo fruit ak nu mel foo gisee ne foofu daal boo ko lekkee amaana dina la lor te bëggoo sànni fruit bi parti bu yàqu bi rekk moom nga war a lelli sànni ko leneen li ci des mënees nga kaa jëfandikoo moo ne loolu ngay def parti ba yàqu ba foofu ngay lelli ba mu rafet nga daldi ko sànni ci aj foofu yàqu foofu ngay lelli sànni ko ci xaj waaye foofu yàquwul parti bu normal bi te rafet sa xel may la ni fii de mënees nga kaa jëfandikoo parti boobu da koy jëfandikoo loolu mooy melokaanu bakken ba nekk ci société bi nga xamante ne bàyyi ko fa day yàq société bi waaye jëlee ko fa tamit day tax société bi mucc mooy parti bi nga war a jëfandikoo yow mi jëfandikoo fruit yi bañ la tegtal ne am na parti bu yàqu parti bu yàqu boobu ngay jël sànni waaye partie bi nga xamante ne sa xel may na la fii de mën naa kaa jëfandikoo mën naa kaa lekk parti boobu doo ko sànni parti boobu danga koy lekk moo tax yàlla ne wala taqutulu bu rey bu leen rey al anfusa bakken bi nga xamante ne xaramallahu yàllaa ko xaraamal ngir ñu faat ko bu dee ñàkk kaa faat du wéy du mun a ñàkk na tegu illaa bil xaq ci digg bu leen faat bakken bu leen rey bakken bu dee du ñàkk nag na ci digg waaye defar sa waruwaay wi nga xamante ne wóoru la ba xam bakken yaa ngi ci yëpp dinañu àgg wala duñu àgg yàlla ne déet bu leen def nii de fee mu ne la bul bokk ci ñu koy def fii mu ne la bu bu ngeen ko def bu ngeen bokk ci ñi koy nas fàggu alal bu mu tax nga jël tayle bakkenu jàmbur ci ndox wi jaru ko hmm, jaru ko de am na xeetu rey xeetu faat yoo xamante ne doo jël jumtuwaay jëfandikoo ko waaye yoon bi ngay xàlli trajectoire wi ngay créer couloir ya ngay orienté nit ñi bu ñu fa duggee mooy mara di bu leen dugg ci loole yàlla ku leen yërëm la yàlla ku leen yërëm la yërëmande yàlla ci jaami nag ki ko war a mën a promouvoir na nga nekk ci loole bokk na ci la ñuy def ni sensibiliser nit ñi ci réew mi FM 97.5 bokk na ci ki nga xamante ne day yoole nit ñi ngir ñu bañ a dem ak nuñ ko mën a defee waaye bokk na ci imam ya war a yéeg ci manaabir yi bokk na ci intellectuel ya war a mën a toog ci bérébu waxukaay ñi bokk na ci journaliste yi nga xamante ne war nañ kaa wax anam bi nga xamante ne gars yi war nañoo war a mën a am sensibilisation bu mel nii du ñu tàbbil seen bopp ci li leen di alak wala li leen di faat su ko defee ñu bokk sàmm suñu bakkan ak suñu bakkanu njaboot waaye ña yàlla teg ci njiitu réew mi nga xamante ne ñooy umaraaw yi nga xamante ne ñooy njiitu kilifa diini yi ak njiitu kilifa gouvernement bi ñu bokk ñoom joxante loxo takk ba dëgër nekk benn say xool lay naaw ci jaww ji lay nekk ci géej gi ak lay dox ci jéeri ji lépp ñu saytu ko amaana bu yàlla gisee ni farlu bi benn la bëgg-bëgg bi benn la du ñàkk mu may ci ndam yan nañu ci yàlla may ndam mbokk yi réew mee fm 97.5 lii lañ leen andil tey ci waxtaanu fajar ba ñuy am ak ci daara ji ci waxtu bi waxtaan bi nag jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana amin ya rabbal yàlla boole si ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy topp da ci gën a rafet waaye dañuy jëfe li si gën a jekk yal nañu ko yàlla defal nii amin allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih aimmatana wulata umurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan maa daxara minha wa ma batan allahuma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma alnasir baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alcadim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alxakim aqulu ma tasmacuun wa astaghfiru allaha lii wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rrahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu